mu wax ne ci darajaay sayna bu umu kalsuum yàlla na sëriñ bi rafetal suñuy doom kon soxna sayna mbàkki moom yi ci doomi borom tubaay la nekk gisuma barabam waaye njortu naa ne mbàkki kajoor la nekk donte nag barabam gisuma ko waaye loolu laa gën a ci gëstu yi nga xam ne moom laa def su ko defee nag kon ñu limal leen doomi borom tubaay ak kenn ku nekk fañ ko denc juróomi doomi sëriñ tubaa ñoo nekk ci jumaa ji cheikh Mohamadul Moustapha cheikh Mohamadul Fadal cheikh Abdoul Khadir Mbacke cheikh Salihu Mbacke cheikh Mohamadul Mourtada Mbacke benn doomu Serigne Touba moo nekk daaray Kaamil cheikh Abdoul Ahad benn doomu borom Touba moo nekk ci buntu armel soxna May Mbacke Zuhra mooy soxna May laylatul xadar benn doomu Serigne Touba moo nekk daarul Minan muy cheikh Mohamadul Bachir benn doomu Serigne tubaab moo nekk pencum Serigne Souhaïbou bu. muy Cheikh bu Mbacké fukki doomi Serigne tubaa ak juróom-ñeent ñoo nekk ci biir armeel yi nga xam ne ñoo nekk ci penk jumaa ji Cheikh Mamadou Lamine Mbacké di Serigne Baara Cheikh Abdoulahi Borom Dër bi Cheikh Ibrahima Mbacké Cheikh Aboubacrine Mbacké Cheikh du Kabir Mbacké Cheikh Abdou Samad Mbacké soxna Fatja Mbacké soxna Assou Gawane Mbacké soxna Mbeen Ngaabu Mbacké soxna Aminatu Mbacké soxna may alkubra Mbacke soxna moominatu Mbacke soxna xadijatu Mbacke soxna xadija mii moog sëñ Abdou Khader ñoo bokk waajuru jigéen soxna fatimatu penda buyo Mbacke soxna muslimatu Mbacke soxna mareema kunta Mbacke soxna ami cheikh Mbacke soxna Diop Mbacke soxna fatimatu Mbacke ñoo ñooy fukk ak juróom-ñeent yi nga xam ne ñoo nekk ci biir armeel yi nga xam ne moo nekk ci penku jumaa ji fukki doomi Serigne tubaa ak juróom ñoo nekk ndaam daaru alimul xabiir cheikh Muhammadul Muxtaar Mbacke cheikh Muhammadu Abdullahi Mbacke cheikh Abdul Muhayminu Mbacke cheikh Abdul Baaxi Mbacke cheikh Muhammadul Muxtaar Mbacke cheikh Aboubacrin Mbacke cheikh Amidun cheikh Muhammadu Abdullahi Mbacke cheikh Abdul Xudus Mbacke cheikh Muhammadul Kabir Mbacke soxna Aminatu Mbacke soxna Tahiratu Mbacke soxna Maymunatu Mbacke soxna Maskuratu Mbacke soxna roqeetu mbakke mooy fukki doomi sëñ tubaa ak juróom yi nekk ndaam ci benn barab lañ nekk ñoom ñëpp fukki doomi sëriñ tubaa ak benn ñoo nekk xuru mbakke kenn rek moo ci beru fukk yi ñoo bokk benn barab buñ nekk ki beru mooy sëriñ Abdou Salaam Mbakke ñi ci des nag fukk yi mooy cheikh Mamadou Abdoulahi Mbakke cheikh Abdou Jamil Mbakke cheikh Abdou Wahab Mbakke cheikh Abdoul Baaxi Mbakke soxna Aminatu Mbàkke soxna Salimatu Mbàkke soxna Mariama Mbàkke soxna Muhsinatu Mbàkke soxna Fatimatu Bintu Mbàkke soxna Mariama Mbàkke ñeenti doomi Sëriñ Tuubaa ñoo nekk Mbàkke Bawal mu amadu Yeddaali Mbàkke ma nga njaay yeen Cheikh Mouhamadou Abdou Khadir Mbàkke mi ngi ci barabu Sëriñ bu soobe ci armelim bu soobe yi Cheikh Mouhamadul Kabir Mbàkke ak soxna Fatimatu Mbàkke ñu ngi ci wetu stade bi loolu na xam naa ñu ngi koy jégglu waaye foofu tan la sëriñ bi ganee jamono lañ wax moo tax sax njabootu Maamoor Jaara borom saam lu baree bari danañ faral di wax ne barabu fowukaay boobu dañ ko faa war a jëlee ndax dafa jege lool fi sëriñ bi ganee jamono kon ñoom foofa lañ nekk euh, benn doomu sëriñ Tuuba moo nekk Mbàkke Kajoor boo xam ne gis nañ barabam muy soxna Astu Kajoor soxna Sayna bu nag njortu nañ ne fa la nekk waaye leeruñu waaye ci doomi borom Tuubaa yi la bokk ñaari doomi Sëriñ Tuubaa ñoo nekk na Mbampuna na nag mu ngi ci ginnaaw Ndulo soo jógee Mbàkke jëm Ndulo boo rombee Ndulo tuuti boo xoolee sa wetu càmmoñ da gis benn tableau bu ñu bind na soo ko laajtee ñu wan la ko foofa ñaari doomi borom Tuubaa fa nekk muy soxna Umu Kalsum Mbàkke ak soxna Xadijatu Mbàkke soxna Xadija mi itam mook Cheikh Mamadul Basir ñoo bokk soxna Fatima du maam Euh, benn doomu Serigne Touba moo nekk Kër Mandoumbe Kër Mandoumbe nag ma ngi ci yoonu Louga dëkk bi ñuy wax Njaañ nag la nit ñi di gën a miin waaye boo fa demee danañ la won dëkk ba benn doomu Serigne Touba moo fa nekk muy Cheikh Mouhamadou Abdoulahi benn doomu Serigne Touba moo nekk Gédé Bousso muy Soxna May Muunatu Mbàkke moom nag ku yàgg la ndax mi 1914 la gane jamono moog sëñ Abdou Lahad ñoo maase yaayam tam mi ngi tudd Soxna Sayna bu Mbàkke moom sëñ Mbàkke Kajoor moo ko jur mu ganee jamono nag euh, sëriñ tuubaa sédde waa juróom wu jigéen sëñ Bàkki Buso muy càmmeñam mu dem fa nag gane ko mu wàcc fa liggéey ñu yëgal ko sëriñ Tuuba sëriñ bi wax ne nañ ko denc foofu ci gede ñu denc ko ci biir armeel ya donte barabam nag yombut la gis waaye ci biir armeel yi lañ ko denc ndax dafa yàgg lool muy soxna May ñaari doomi sëriñ Tuuba yi des muy Asan ak Useynu te ñu bari xamuñ leen moom itam jëlee naa ci kilifa gu baax a baax a baax mu wax ma ne ñu nga leen denc fas Touré waaye loolu dafa jiitu géej gi moo tax ñoom itam gis seeni barab yombut waaye foofa lañu nekk lii mooy juróom benn fukki leeri Serigne Touba ak juróom benn yi nga xam ne def nañu ay gëstu yu leer a leer a leer tudd seeni tur ba pare gis seeni barab ñetti barab képp lañ ci gisul waaye juróom benn fukki barab ak ñett yépp ku ko bëgg a gis mën nañ la ko won ñett rek lañ ci gisul muy barabu soxna Saynabu Mbàkke teewul nag ñu njortu ne ma nga Mbàkke Kajoor barabu sëriñ Asan Mbàkke ak barabu sëriñ Useynu Mbàkke jëlee nañ tam ci kilifa mu wax na ñu nga Faas Ture waaye dañoo yàgg moo tax bañ fa demee tam gisuñ leen waaye wér na ne ñoom ci njabootu sëriñ bi lañ bokk ndax waxoon naa léegi bayit wi nga xam ne ci la sëriñ Musaa Ka tudd seen waajur ba pare tuddaale leen bi ummi naa mañ tudde faati asanaa maynu useynu dellu maynu asana te soxna faati asan jóob moomu nga xam ne mooy seen waajur mooy waajuru sëriñ baaxir buso moom sëriñ bàkke buso te soxna soose am na ak sëriñ bàkke lu jege fukki bant ci gëstu yi nga xam ne def nañ ko lii nag lu tax ñu def ko mooy sëriñ bi njabootam waruñoo réer war nañoo fexe ba xam leen war nañoo fexe tam ba tur yi ci gën a siiw nga xam ne murit yi am pësteef yépp te bëgg njabootu sëriñ bi ñu bari ci ñoom tudde nañ leen ay doom mel ni cheikh Mamadou Soar mel ni cheikh Mamadou Fadal mel ni sëriñ Saalix ak ñeneen ak ñeneen ci ñi nga xam ne toog nañu xalifa ak seeni jigéen ku mel ni soxna May ku mel ni soxna Fadja ñooñu nga xam ne xam nañ leen bu baax a baax ñi nga xam ne xamuñ leen tam war nañoo fexe ba seeni tur sax fi ngir sëriñ Tuubaa moom lépp laal day jëm kanam rek. di bi di naat bëgg guñ bëgg nag ñu fàttaliku doomi borom Tuubaa te xam seeni tur loolu moo tax ñu def téere bi tuddee ko yoonu ziyaara barabu doomu borom tubaay te Sëriñ Tuubaa loolu daf ko ñoroon ba tax mu wax ne zur man tuhibbu wa in bi bika daaru wa xaale min dunihi sahlun wa awhaaru laa yamna annaka buxdun min ziyaaratihi inna al muhibba li man yaxwaahu zawaaru kon ki nga bëgg a ziyaare bu ay montagne doxoon sa distance ak moom tam war ngaa fexe ba jiim ko ziyaare moo tax ñu defar téere bi tudde ko yoonu ziyaara barabu doomu borom tubaay ñu ngi ñaan na képp ku tekkalu ci téere bi wala kàddu yi ba ziyaare doomi borom tuubaay yi yàlla defal la njéggal te defal ñu ko ci seen barke ak barkeem moom sëriñ bi am na tam ak ñaan guñ def ci téere bi goo xam ne sëriñ Tuubaa nee na képp ku may ñaanal nag ma jàngal ñaan googu kii moom sëriñ Touba moo ko waxal boppam leeral gi nga xam ne moom lañuy mujj nag ci liggéey bi mooy fukki doomi sëriñ Touba ak juróom-ñeent ñoom ñoo am ay photo kon li des ci njabootu sëriñ bi ñoom amuñ photo yu ñu leen mën a xàmmee waaye fukk ak juróom-ñeent ci ñoom ñoo am photo mooy Cheikh Mamadou Moustapha Cheikh Mamadou Fadal Serigne Abdoul Ahad Serigne Abdoul Khader sëriñ saaliw sëñ Baara cheikh Mamadul Bachir cheikh Ibrahim sëñ Chouaibou sëñ Abdou Samad sëriñ Abdou Mbacke mooy sañ borom dër bi cheikh Mamadul Mourtada mooy fukk ak ñaar ci góor ñi ñi nga xam ne am nañ foto juróom-ñaar ci jigéen ñi ñoo am photo muy soxna May Alkubra soxna Momi soxna Mbenn Gaabu soxna mosli soxna Ami Cheikh soxna May Suxra soxna Astu Gaawaan kon ñooñu ñoo ci am photo bokk yi nag. maa ngi ñaan képp koo xam ne jot na ojo bii tey soppeeb sëriñ Touba wala muy soppeeb doomi borom Touba yi maa ngi ñaan mu jàllale ko mbokkum taali bi ba mu jot ko ba su fekkee ne munta am téere bi tam ab noppam njabootu sëriñ Touba gépp dugg ci ndax loolu jàpp nañ ne mën naa jur texeeg àddina mën a jur texeeg àllaaxira képp koo xam ne tam jot na audio bi te am lu muy sikki sàkka ci lim bii nu joxe walla turi yi su bëggee jokkoo ak ñun ngir yeneen leeral sunu woowee ci 77 874 39 00 wala mu woo ñu ci 76 585 79 67 lépp lum ci bëgg a leerlu danañ ko ko leeral ojo bi itam defuñ ko ngir publicité téere bi waaye dañ koo def rek ngir ñëpp mënuñu jot ci téere bi te ojo bi ñëpp mën nañ cee jot waaye képp ku bëgg téere bi itam su jokkoo ak ñun. inchaa allahu taala defar nañ ci lu yaatu yaatu ci ndigalu sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Abdou Lahad mii suñu sëriñ kon ñu ngi ñaan ku jot ci audio bi jàllale ko yal na nga dajeeg wax di awaa ijja lazina daamu fii xidmati wa ab ablahum maaraamu di sëriñ Tuubaa ñaan ne képp ku ma liggéeyal suñ borom dana la may li nga bëgg ci àddina may la li nga bëgg ci àllaaxira ku jottali audio bi yal yàlla suñ borom jottale loola ci barkeb sëriñ Tuubaa maa ngi sant ñëpp di gërëm asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.